monsieur le ministre maa ngi lay nuyu fa am jamono ci gannaaw fan yële ñu doog a président de la République ma am lu ma ko waxoon ci présentation bu nuru di wane ñi may waxal ñan la ndokk nag bi alquran waxee wala taktumu shahadata li tiital ñu bari nag mooy la ca topp wa man yaktumha fa innahu aasimun qalbahu sama borom dafa tere interdit tëkku ku nëbb seede ci moroom Baye dafay faral di wax ne ñaar léeg-léeg mu ne ñett ay daf ni doomu aadama yi ñaar lañ am na ñoo xam ne ñii dañ leen di peese ak ñu ñuy wàññi si Omar Seck mu baax mi wax la léegi lu xaw a deme demee noonu xayrukum man ta'allama al-Qur'an ñooñu dañ leen di wañ boo agsee nag ku ñuy wàññeek ku ñuy peese di nga xam ndax yow ku ñu war a wàññe wala ku ñu war a peese la góor gu mu ne ñaan la ñaar ñu nuroo lool wax naa ko premier ministre bi dem wax naa ko président am papa nee na dafa am ñaar ñu nuroo lool bokk lu ñuy dox bokk jikkuñ koy doxe bokk ku leen yónni bokk lu mu leen yónni bokk ci ku mu leen yoon yónni ñu nuroo yi lu ñuy sol nuroo nañ sax ba nuroo lu ñuy jëfandikoo pour ñëw lu mel ni békaat wala moto mooy di dox it bëccëg lu ñuy jox guddi kenn naa leen yónni buur ci kan ci baadool lu mu leen yónni aw këyit mu ne ñu naq ràññee la kenn mënu leen a xàmme ne te xàmme leen di farata ma ne koo kan la mu ne kenn ki kakki lay sol ci des kakki sol mu ne waaw ñoo ñan la mu ne kenn ki alxawf war raja kenn ki convocation lay faral indi ci kër gi bu jóge police mën naa am dig mën naa am feneen kenn ki mandat lay indi bu baree nag police yi di ñëw sa ba nga nee sa soxna ku fi ñëw di sol kàrki dàqal ma ñu ne ëllëg la tabaski sa doom ju nekk Amérique yónnee la un million sa jabar dàqal la ko def na musiba ñii ñoo yor facteur yi doomi soxna yi doomi daara yi benn point rek laa bëgg ñuy ràññee sëriñ si sëriñ daara ak sëriñ lasraar ak sëriñu sharia lañ leen di jaxase ba léeg-léeg ñoom ñu laalante te duñ ko xam te sama baay dafa ma ne ñaar ma ne ko waaw mu ne ma ñu ànd ak junni nit ñaar ñooñu nañu góorgóorloo góorgóorloo góorgóorloo ba duñu jëppante ndax lépp bu ñu géttee mbooloo mi rek ñu la la ñaar yi jorocceeku ci junni nit nañu fexe ba fonkante ñoom ñaar ndax la des ci junni ba yëpp jëppi nañu leen te ku rocceeku ci doomu diine rek ci biir daara rek na bàyyi xelam mbokkam waaye kii nangam la dégg naa bëgg dama benn nit ku ñu wooyee këru diine di tudd nit naan diw ibaadu laak wala la salafi laak wala nangam nangam nangam te moom xamul li mu doon moom bala ngay wax keneen waxal sa bopp góor gi daf ne lu tax ngay wax jàmbur bàyyi sa bàyyi lu tax ngay wax li nga foog nëbb li nga xam waaye li nga xam mooy sa bopp li nga foog mooy jàmbur wala tëtt mu charette ba ma commencé nag mooy dama bëggoon wax ñaari baat bi may xamante ak ki yàlla dogal tey mu yor réew mi booba ñun ñaar ñëpp kenn ku ci nekk lijjanti pass bu la yóbbu Dakar jafe nan Macky Sall fa am jigéen ji ñox binte ñan moog Ibou Sakho bokk benn ndey guy sëgee leen jur yàlla joxoon ko barke nag am do mu tudd roxee roxee moo doon sëyeeg Macky Gassama ñu jox ko Macky Baro Macky Sall mu nekk xale boo xam ku amoon xel day teelu te bari looy jëfandikoo course dengan nga foog ne kii dina dooni dara ngir bëgg alquran alquran daf te loo xam dafa dundaloo ko moom ma léeg ñu ànd ci barab ma gis ko muy ngaan ngaan ngaan ci alquran waaye ma ne ko sa waaye alquran xam fuñ jëm bëgg alquran teel na xamit ne ay facteur ngeen ba bàyyi na xel yaakaar naa waxe sëñ loolu li may wax ci sëñ Baye Mansour bu ñuy joxe micro bi ba mu jëm ci moom daf may wóor la muy wax dëgg lay doon du jarawaat balaa wax maamam si daaj Malick moo ne woon ndax it naa xul kullal wax boobu nag jëm ci Cheikh Dante mii nga xam ne tey ji mooy bu yàlla xamale naa moom lu yàgg te boobu nekkul ministre ku jëfanteeg moom ku ne danga koy jéem a fay waaye jéem a leble amu fi moom ci diine ci daana ci jàkk te amul kenn ku muy jëfanteel koo xam ne ki nag boo génnee di nga foog ne ki ne ci sa xam ne lu muy jëfanteeg yow ba leen demee du ko nettali ku mel noonu mooy suñu partenaire daara tey seen woowu Adam yàlla jox nañu partenaire bi ñu doon ñaan